Balla Gaye ak ki nga xamante ni mooy Sa Thiès muy ñaari doomu Double yoo xamante ni jamono ji ñu ngi si làmb ji waaye nag dafa mel ni ba seen bàyyi génnee àdduna ba léegi ñu ngi dund ay jafe-jafe ci wàllu bëri ndaxte ki nga xamante ni mooy Balla Gaye numéro 2 moom jóge woon na ci défaite ci combat bi mu génn du ko doxaloon digganteem moom ak ki nga xamante ni mooy Bombardier waaye nag loolee moom Balla Gaye gis nañ ne kat adversaire yi nga xamante ni ñu ngi ci kanamam ay adversaire yu métti loolu la waaye sax combat yooyu sax moom rek bu ci génnul dina am jafe-jafe si wàllu làmb bu ñu sukkandikoo si ki nga xamante ni mooy Sa moom nag dafa am problème mu adversaire waaye nag dafa bëreel wala sax dafa dajal benn xale boo xamante ni jamono ji moom la ñëpp di coow si li nga xamante ni mooy si làmb ji muy rëg-rëg mu doon combat boo xamante ni combat bu nar a métti rek lay doon kon nag moom Sa ak ki nga xamante ni mooy Balla Gaye numéro 2 ñaari doomu dubale si jamono ji ñu ngi dund lu ñu ngi sax si fulu ndaxte gëj nañoo yóbbu li nga xamante ni mooy ndam foofe ca géejawaay wala sax seen kër Kër Baye moom. moom Balla Gaye numéro 2 dafa war a laale ki nga xamante ni mooy Gris Bordeaux war a laale ki nga xamante ni mooy booy Niang ak ki nga xamante ni mooy Eumeu Sène bu ko daan ñaari yoon mu doon combat yoo xamante ni combat yu nara a métti la si doomu duubalees boobee waaye nag ñaari doomu duubalees yi jamono ji ñu ngi si danger ndax ki nga xamante ni mooy Sa moom nag bu ñàkkee li nga xamante ni mooy combat bi mu am moom digganteem moom ak rëg-rëg dina doon loo xamante ni dina jaxase li nga xamante ni mooy carrière am moom Sa jamono joojee sax dañ doon wax dina bokk si boo yi nga xamante ni ñooy teel a yéeg si euh, kaw VIP yi waaye nag dañoo gis ni ba léegi mu ngi traîner lu ko waral nag nekkul dara lu dul euh, défaite bu mu am si digganteem moom ak Boy Niang diggante moom ak Boy Niang diggante moom Boy Niang nag ba mu jeexee dafa am li nga xamante ni mooy problème mu adversaire naam sax daan na Moussa Ndoye si diggante bi moom Sa Thiès jamono mu ngi bëree ki nga xamante ni mooy rëg-rëg bu daanu rëg-rëg rek li nga xamante ni mooy làmbam jamono ji dañ koy xel ñaar ndax est-ce que dina dem wala sax est-ce que dina bokk si camp VIP yi comme ki nga xamante ni mooy Balla géey numéro 2 dañoo gis ni Sa Thiès rek mooy doon mbër boo xamante ni da koy remplacer foofee ca Guédiawaye waaye Sa Thiès mu ngi commencé traîner moom Balla Gaye numéro 2 nag jamono ji dafa ni rek dafay commencé di jeexal gis nañ ne diggante moom ak bombardier euh, bii ñu génn dafa amoon jafe-jafe pour taan ki nga xamante ni mooy euh, bombardier maanaam action yi nga xamante ni lañ ko doon gis ci Balla Gaye numéro 2 kenn gisatu ko kon nag mbokk yi jàppale ni ñaari doomu Double Less yooyu Balla Gaye numéro 2 ak Sa Thiès sa jamono ji ñu ngi si jafe-jafe